woon ba tey jóguma ko moom yàlla dogal na ni ñemewu ma sax nag hmm. su ko nee Pape bi hmm. xam na fu may wax fan laay waxee loolu laa xam ci xale waaye lii daal ma waaye nag naga naga naga méfié wu woo yaa ci koñ bi xale yu mool yaa ngi ci town bi mais doo tànc ci woo yi yow luy sa problème non ay góor lañ ñun ñii ñoo fi nekk keppal ci booy yi yow nga topp benn booy bi rek wan bàyyi wan wan bàyyi wan topp ko rek mais game bi du loolu maay wax la booy bi te li ma gën a jaaxal nag mooy def naa test de grossesse dama ëmb ëmb lan yow ñu ngi wax yéeg sa kaw bari gu ñu nga naan ëmb patience moom zéro nga ci amul maa ngi di génn eh yow foo dem damay génn génn fan doxe samay soxla kita ci samay nggak nga war a doxal ci say soxla ah kamu lu ma bëgg pour wax ci gàtt rek sama ñoom bi ma bàyyi as. ci aas nga récupéré nga demal ma Grand Thiès ci atelier Pape Demba armal ba ma doon defar pare na bu ko mënee teg ci oto de yi nga indil ma ko te boo ñëwee añ bi mi ngi lay xaar loolu laa bëgg nag. dafa ci dul yam dama ci yam sax nag li nga lim nii billaay duma ci yam leen laa bëgg dugal ko ci sa bopp gis nga buumu jàmbi bi dagg na bu yàgg. Eh. man maa doxatul ci service su kenn waxantuma la ak yow mii li nga lim dara laa ci defal togguma yàqu ma balew ma xaw ma armoire xaw ma ñaw soo bëggee nga woo cag-cag bi la ko indi xaw ma deux wa quatre nga woo ko ñu ni ko soo bëggee jàmm baa jànk wala koo commandé da ngay dem waaye doon ma yow bi ngay wax tiitoo noonu la ñu façon ma am lu ma yëkkati jox la nga am loo teg pour ñu waajal euh, pap hmm. ah ba léegi nag pap mi ngi may romb gauche droite te ni ma ko gisee la ñu pour mu mooy mbirum tukkeem bi hmm. nekkagul sax nit koy tukki defu ci defu ko sax ci bopp bi réalisé sax ci ku war a tukki booba léegi yaa ngi yaa ngi noppi waxoo ma dara maa la doon laaj foo ci toll. ah, ah man loo may déglu man li ngay wax dama cee xam dara man kat li ngay expliqué yow doo doo wax wax ju leer yow da ngay ay ay loolu tamit day mitti daal. dama ne. Ah, ah. xaalis bi fi Eric bàyyi woon laa la wax. Ah. yaa ngi dégg dafa am loo ca aman ma am lu ma ca aman ma génn teg ci taabal ji nga génn teg ci taabal ji ñu waajo ñu waajal Paco pour mu tukki hmm. booba léegi laa ni la gis naa ni booba léegi waxuma dara moom it nuruma sax kuy dem hmm. ma la doon laaj foo ci toll voyage bi dafa annulé walla ba léegi yaa ngi ci waay waay yow yow koy waxal nga ko sa bopp nee nga nuruwu la sax kuy dem ah. waaw yow koy xam nga ne kuy waaj ak ko ku ku bëggut dem kay neex naa xam ne pap demul lànk na de nee demul bañ. léegi nag. Hmm. comme que demul. dootuñu ma ci waxaat ndax man kenn du ma bëgg a euh, gënal sama bopp. ah, ah, ah, ah. Hmm. la ma la joxoon laa bëgg nga joxaat ma ko récupérer ko téye ko. la mooy la ma cofoon jox la un million yi. yow ak li ma la xamal lépp. dama lay weer de. hee ay waay yow boo sàllanikuwul ba koñ bi ñëw yow baalu ma. ah eh dama lay weer de dama ni la nga yuuxu ba koñ bi yëpp. bu daalee haut-parleur. haut-parleur eh. moo gën a gaaw nga takk ko. Eh, eh, yéen nan laay génne sama kër gi am ay attentat nii problème weer beeg weer bi lan la ah weer beeg weer bi yéen war na leen jote lan mooy weer ak weer yi ak lu ko fi andi. kii de dama ko ne na ma demal marché ci as jëlee li ma saw ma ne ko ak grand Thiès bu ñëwee ñëw taal añ bi loolu de laa ko wax. mu ne ma defuma ko. yow ya ko defuma mako maa wax ca bamay neex. dafa son dafa son son dafa son ki son ki day bëgg han ah ay garanties ay marché mu sonn ki marché yëpp xàmme nañu kii dafa jaabante muy bëgg a dee doomu jambour ji ngay torturé kii ni nga fi ñëwee pour sey non la fi ñëwee pour sey ki du sa mbam ki du sa mbindan yow ki amo loo koy sant man mako wara war a sant man sonaluma ko waraloo koo sonal yow kenn defu la won ni bal xale bi bu ci gona gi ki la jël nga ko yow lan la lu sa problème. ah ah waay kii dafa sonn yaa yey da sonn doom da ngaa yéex a def lii. muy ji. Ah, waaw. waaye xanaa nag ndew ndeetu yi mbaay nag loo dof dof dof dof dof xam ne nag xanaa déggoo kii liggéey ci kaw wala ah, waaw waaw waaw maçon bi ci kaw. waaw maçon kuy ku muy liggéeyal. ah. waaw. ci kaw laa def ñaari appartement war ko luwe ci loolu laa nekk ci travaux yooyu ci laa nekk boobu ba tey yow foo ne. ah sa dof dof lu nag ah. man daal man daal man daal man franchement franchement man daal damaa xamatul Fatou Dame yow xàmmeetu ba ndax la Fatou ku moom kër sama kër la dama ko mas a bokk ak kenn wala ma koy jéem a programme ay ay loca à ma sama kër du ma bokk ak benn locataire kenn du fi nekk kenn du fi léewuma kenn ndax li ma am doy na ma ah nga taxaw naan ma ay locataire ak Samba Bala Ndiaye ba tax kon li may dégg muy yëngu muy liggéey. ñoom la dañooy liggéey ca kaw de 1 million yaa ngi ma joxoon tamit ci mu nga ca. ah de non loolu mënut a nekk. loolu mënut a nekk. ndax la du man a nekk. sama xaalis joxaat ma ko te man defuma pour ay kur kuy lee. te yow xam nga la nga war a bàyyi kër gi sama kër loolu dee koy bàyyi. lu tax duma ko wax. ah fii ba ñuy fondement ku taxaw. ba ñuy fondement ku taxaw. ku taxaw. xam nga chaque jour man la daam mbaw ci boppam sa rakk jooju defu fi dërëm. cib accident la aman loola yow nekkul suñu kër lan ko def man lii maa ko lëgëy maa dem dëkkoo dëkk maa ngi doog a bëgg na ci yow fi nga ko téye nii ko waroon téye bu kon mu may la jàmm kii xamul xamul ba ca yam dina la rey nag eh, eh lan la jox la même bu naa ko ca res naan jàmm ak eh wax maa ko wax ba ci digg yàqu man maa ko wax man defe naa ne de Nek ci samay waw mo gën pap Thioune me muy wër goudi ak bëccëg. mo <laughs> lolou moy la. du yaa ngi dégg kii Pape Thioune kii dafa soxla pap Thioune no bop moy la wutul benen bop moy la nday aw yo sa jabar ji ragal nako ko de. kii naa la ndekete ki suba ba ngon ci jaxase ñu ñun ñaar ci la jëm waxuma dara nga ne yow may sosa di mak. ay waxu Pape Thioune nag waaye kii yaa ngi bëgg Kalau eh, eh, xam xam eh, ne ne léegi dëgg non hmm. andil andil bayli ngay def yow gi dafa soxla Pape Diouf. xool de deja yi problème nga may andi ni xoolal waa léegi dama soxla. damaa bëgg mu joy ba joy deret. yow sa jëmi bop nop lay lay lay yoot mu ngi lay yoot jooyagoo leen sax. des na. dem fi ra joge fi dem bi joge fi dem Kenya fi ma jaar yëpp ba tax saxawul sama kër gi dama ni la bayel di def sa xel ne dan ko bok wax lolou waxul olof la rek mom non duma bok ak sama jabar askar lo fi def. bay Marème Faye Sall ba muy wàccee ay feeram ak ay suufam ak i béton foo ne. fa foofu moo ne. foo ne fan laa ne. yaa ngi ci dëkk waaw. waaw waaw. woowu ma la téléphone ni la Marème Faye moo ma indil suuf indil ma fer indil ma ciment. Euh, euh, euh, defal ma yaa ngi dugg ci erreur. ni la moo ma ko may léegi yow loolu ci sa compte lay dem bu la ci sama compte lay dem loolu laa bëgg a xam. xam nga lan la Faat bu ma indil problème dama la koy wax. Eh. bàyyil bu ñu waxee ñaar ñett nga ne kër gi dañ ko bokk bokk na ko Marème bu la joxee xaw ma foo ko dugal. man sama kër politique wu mako mako ñak ci kër gi la ko duggal de duggal mako feneen ci kër lenn daal lay xamal di nga ma jox xaaliss bi de. deureum do ko la ah deureum duma ko laal doo laal dara. deureum duma ko laal doo laal dara. dama def bay li ñuy defar ñokoy bokk. way man la xam bay ma ñokoy bokk way yow. am nga droit de retraite ko na am nga droit de sa mais moo ma ci dara. Ah. moo ma ci dara. dang may jox 1 million danga ko jox ma teeku ko. te bu ma dem ci machine bi ne ko ne arrêté daal. Kan liggéey kan moy arrêté. kan boko arrêté rek jot sama jikko

ndox woowu moom mënta weesu koŋ waaye sësit ci rikk la yam jeex nag moom buñ ne tàkk moom afaga fa la siré waxtaan nanu nam ma waxtaanee sax jarul sax may nekk di wax a eh, az li ci gën am solo mooy ni yow yaa ko ëmbal te jigéen nag bu ëmbee ba tudd tur amna lu mu ci xam eh, te yow nak demone nañu sax bay wax ni lo dugg maa la ci dugal te kat nee man sa complice la daj na fi ay guddeeki bëccëg yu metti ci kër ga melni prisonnier bu nek prison te sam bir kër la nekkoon ñu tej ma rap gennatuma goudi gennatuma bëccëg yow mi sax mënoo won jotati ci man te lool yépp yow ya taxone Euh, kon nag ak fi ñu jaar yëpp ak li ñu séq yëpp maag yow euh, bu sama doom ëlbatikoo di bëgganteeg yow ba lii xew ci ndogal la nangul ni yow la euh, bu mu amee doom ñu may la ko mu jeex tàkk jeex na am de depuis 5 minutes maa ngi toog fii yéen ñaar ñëpp ngeen sëgg et puis yow fan yi da nga bizarre na nga wax ak man téléphone da nga may daw mais lan la lan moo xew Cécile lan moo xew aussi c'est un blague de mauvais goût xanaa yoon kenn du ko café ah ëmb. nan la. eh. eh. Ah, bon <laughs> Euh.. yow.

man maa la defaral lépp kon buñ le piné la punee orang, yow la bi ci dess le cas de ciré bu ëmbé day xoli ko ko ëmbal ndax man ëmbaluma da na tok nan bëgguma ba yee xam ko kon koy bu mu ëmb ñëw fi ngeen may ngeen ngeen eh, jiitle ñëw naan ma ko eh, eh, eh tëjal sa làmmiñ yo amo pour wax fi dara nan ëmbaluma ko yaa ngi dégg lu ma lay wax gis nga kii moo fi nekk di masala ak di wax lo xamanteni ni tagul amul bop amul genn xam nga lan la lay yëgal eh bu jinnee bëggee Dakar ku ni ci suuf ngay ñuus yaa ngi may dégg bu baax. xam nga lan la bëgg man duma sam morom ya ngay dégg jur sama dom nak yar ko téye sama dom, fa ma ko war jangal ko diine jangal ko l'islam xam sama dom bu baax xam lu mu wara def ak lu mu wata def nga ëmmal sama dom tok fi di weddi duma ko nangoo ah mo ñak fayda mo matati waye du man yow xam nga ma bu baax. Mm-hmm ba ngay ñew sama kër sax mayuma la ben kanam gi man soxlawuma sa ñaar mom mi nak mo waye wayadi ni mu mel nak mom mo ni mel waye xam nga ni man dama mat da mat ron la def te da nga dugg nak point bu sensible nga dugg bu la léré muy sa jàmm fi nga tek sa loxo du fof baxul dama ni yi nga daan upp muy boy bi nak xol day sedd guy baa leew lerr na la hé sama dom nga laal de laajuma la ngay wax pare nga dama bëgg nga nopp ma noppi ngay soga wax man ragaluma la tiituma la so pare mo faalewuma wu mala ya, ngi dégg li ma lay wax li jëntiwuma mala yow nee la ki mo la ragal ki goor la de xolal man may wax ak yow dëgg ha yow lay xal kan, lan nga lan way da ngay fenn ko lombal ëmbal siri bi ma xam man yow man mala yar 5 ans ñu nekk ko ensemble man musuma xam lan nga wodo suma la jégué sax nga pousse ma dima téré sa bok nan da nga am non xolal wax ma leneen de Cécile wax len mom waxal waxal ak man nan la ki keref kan mo gëmbal non man yow awma lu man laaj eh eh non ki doful yow kan mo lembalew Euh, ñaar xam nga waaye ñett xaw ma euh, euh, tu auras te nag naa la xamal leen woggu suuf bu duggee ci pax tuxul waaye daal dellu fu mu jógee ndax maa drogué tëddee ma mais lan def ba Eric di la ëmbal mettre fin à notre relation man ak moom. cherché naa ko bosoon def ngay effort yu bosoon mais bëggoo xool lu ca jiitu sax ca damaa ñëw fekk la ak sa waaj muy wax ne te xam naa nga bëgg nga je sais que ni nga bëgg ma di sacrifié wu am na yu bari ko ci sama ak yow di nga lu bari ma ndax li gaay naan doole jam jàmm ankay doole dox jam, jàmm ndax loolu ci yow laa ko gis ba ma gëm li ma wax proposé ma verre ba ma naanee verre bi laa xamatul fan laa nekk mais lan ngay def nga ëri yow lan ngay def kër Eric magum jëm sol say dal dem ser yo nga def la ay dafa drogue def ko da ngay fenn waxu deug et puis Cécile lan moo tax moom porté ko plainte. ah déjà gis nañ ki ni mel xel yi sax mooy loolu jarul sax nekk fi ay naan police ak plainte ak yooyu. mais yéen da ngeen dof wala dafa am leen dal dañ dañ ngeen ay kon day fen kon kenn drogewu ko su fekkee dañ ko dorogee lan tax mu dem porté ko plainte baax muy jooy jooyam muy ay eh, non non way ki lan lay def ko Eric bu ngui yembal yëmbal Siré yow lay waxal lan ngay def ko Eric bu ngui yembal yow li nga nek tayo ko de gis nga fi nga duggal sa loxo bi di nga ko genné té buma la waxé di nga ko wëccax rek di nga ko wëccax ndax man duma jul sama dom. kenn dama ko yakal dama seetaan ha ah. bu la léré rek muy sa jàmm fa ma ko juree fekke woo ba tay nga ñew yak taxaw fi dima xoli beut ngir nga sa veru miya bi yow bandi wo da ngay bandi bandi man naka jek say dara doyuma naka jek sa dara doyuma man ma mala a gisee sa kanam gi la xamni wuyu international nga kañ lay wax eh eh eh, eh xolal man ma maa may waxal mënu ma may mais xanaa man ndax mën na wax non damay laaj rek ndax mën naa waxal mënu ma waxal wax yow buñ na ya, lay waxal da nga am dara lay ya, wax ok am na lu may wax waxal boy wax eh, ndax ya yow da nga jum la laajuma la waxal ok non man bi nga wax dama la deglu je te respecte beaucoup yow da nga ma def da lay respect ok wa wa eh dama ki mo la won ñaan fay respecte do nga bay def yow yow waxal li ngay wax bi ngay wax dama la deglu kon su may wax da ngay deglu waxal ok fi may njëkk ñëw fi may njëkk ñëw ci yow da nga ni soxlo sama ñaar deureum tous ah ok lek nga sama 500 millions dama la ko ñaan entre parenthèse. Eh, waaw tu me laisses terminer. dama ne ma noppi oh, bàyyi ma wax ba pare. Eh, da may bàyyi ma pare. du la bàyyi ba pare boo may déglu. may ma ma ñëw ndax kii mën naa yaakaar ni. man damaa lekk sa xaalis na dama laa doon caddoo wala damaa topp sa ginnaaw wala dama lay maral sa tànk yi du ma ko def. ba nga ñëwee sama kër dama laa delloo sa xaalis si njëkk ak teraanga ne la soxlawuma sa ñaar dërëm sama doom it soxlawul sa dara parce que loolu laa ko yaree yaa may dégg nga jëkkati xaalis bi ne ma maman doyewu ma xaalis bi dara xaalis bi du ma di nangu looloo tax ma téye sa xaalis. eggale li ngay wax. ok yéen a yem rek bi ci des sa doom boo bëggee xam ku ko ëmbal dangay seeti Pape sa doom da nga may déglu moo pare da nga may déglu moo pare Siré daan na fi ñëw d'accord mais Siré mosuma koo teg loxo Siré mosuma xam nu mu mel. sirip musa na ñew sama appartement bi fi lay tok ma tok ni war ñu tok ne sama table ne ñu jakkalo ma mom tok waxtan sirip musul xam sama chambre à coucher nu mel preuve à l'appui bi mu dem sama kër tonto pa alsan tout récemment yagul dal mako rom mom ak pap tune bo bëggé man la vidéo photo yaangi ni lu amul cd attends yeen sen baye dom bo ko bëggé gis den ko den ko gis légui papa papa defal naa ko rek parce que man lépp lu may def man daam seede papa lii lan la xam nga ni photo bi yàggul jardin bi lii yàggul li li lan la xoolal photo bi waaw léegi yéen boo leen bëggee xam ko ëmbal seen doom na ngeen seeti geneen bi pourquoi ngeen ñëw di ma attaqué sama téléphone bàyyi sama téléphone voilà mën nga cee ci ànd. Pape Sira li mu la wax dëgg la de Eric da koo drogué ba pare te li ci gën a pire il a la grossesse. nan la. buggee mom mu annulé plainte bi damay génn ak moom ma nangu génn ak moom kon yow bañ sa mbap tëdd prison motax nga nang gën ak Eric mais est-ce que sa mbap ak samay xamé nañ ko non ah, man l'essentiel yow yaa ma ci intéressé rek comme yow xam nga ko rek c'est l'essentiel sama xol bi mako mom Cécile moomu ko maay xool neex ma duggal ko ci ta yalla def na ni yow la ci duggal pour nga genn fi nak yow dong ya koy def sire bayil sa joy man dina don sa bay doom ana Eric ay pap teman harga ragazzelli lip. Ini kita pop, pap kita pap Alam tu tara. Cecil Pop. Ki. Def mo soutenir fa mu won. bul won ak mom tay ji sama papa mi ngi ci kasso bi